Leewtoo TV umi janka jangi ma góor kanjo far Bambey Leewtoo TV umi janka jangi ma góor kanjo far Bambey Leewtoo TV umi janka jangi ma góor kanjo far Bambey jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu jàkkaarloog yéen di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg saxoo bi di leen ñaanal bu baax jàmm ak salaam tey nag ñu dalal benn promoteur comme ni ngeen ko xamee ni leen koy waxee Leewtoo TV yemul dakaar kese ndax ku ne xam ne na làmb dafa wër Sénégal promoteur bi ñu toogal nag Jurbel la dëkk moom moo jiite Cola production ñu naan ko Ahmed Cola tëgg événement bu mag incha allah lan lendemain Korité fële ca Jurbel ca stade Elimanel Fall ci ay combat yu neex ay combat yu rëy combat yi bu ci dàq sa morom rek nga ne bii la combat bu ci nekk mët na grand combat ci kanam tuuti daanu ci dugg waxtaan ak moom lu ñu def rek lu dul Ahmed bàyyi la nga nuyoo ak suñu mbokk internautes yi waaw di wax Mbaye Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax. di am contentement bu baax a baax. toog ak yow wax dëgg yàlla ak euh, suñu mbokk yi sa xarit yi nga àndal. vraiment ñu ngi kontaan bu baax a baax. di nag nuyoo. Euh, di si jiital waa Njaareem. Jurbel gépp rek fépp fu doomu Jurbel nekk rek fekk nañ la fa nga toog nuyu la rawatina nag gox ba ma dëkk. mooy kër Serigne mbay Sarr. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf Thiolla euh, yaakaar naa nuyoo bi am na solo mais mm-hmm. li ma lay njëkk laaj rek euh, ku nekk xam na ne yow mbër nga woon. bëre ba bàyyi bëre. mais bàyyi woo làmb. yaa ngi continuer di tëgg li nga xamante ne bii ay combat lan moo la dugal ci promoteur. waaw mbay Mbaye Babacar boo gisee loolu am mooy que ne ñun làmb dafa nekk ci ñun. maanaam ñun doon jàng métier boole ko di bëre bàyyiwuñ benn yoon làmb bu ñu yàlla demee nag ba teel ñu see génne parce que làmb ñaari rek moo ci nekk ki ci nekk am ci sens di ci gagné vie mhm. ak ki ci nekk nga xam ne ni mu leer na ko ni amu ci sens mu daw wuti leneen balaa gën a tardé ca loola mhm. ñun nag yàlla doo may nañum xel bi ñu xamee ni lii dañ ciy nekk waaye amaana du mën nañ ci bañ a suñu vie mhm. ñu daw wuti feneen fu nu gañe suñu vie ñëw nag lañu am as néew nu mu tuuti mu bari ñu ñëw bëgg ko indi suñu réew rawatina suñu dëkk nag. Uh-huh. muy Jurbel. Uh-huh. dugalaat ko ci làmb. Uh-huh. ndax suñu rakk yi nag soxla nañ ku leen dimbali soxla nañ ku leen teg doole. wax dëgg yàlla te naam ko nag xëy na doole ji amagu fi waaye nag nit ki li ngay commencé moo ci li nga am. ngay commencé sa dëkk. boo demee ba yàlla dénkaat la leneen. boo ñëwee rek ñëpp dinañ xam ne yow mosoo bàyyi sa dëkk. ñun nag looloo ñu daal nag ñun dañoo dañoo bëgg njaareem lool nag. yaakaar naa journée bi mooy sa première journée ba ngay tëgg làmb ak léegi wala tëgg nga avant journée bi. waaw daanañ tëgg ay làmb mais làmb yu ñu doon tëgg nekkul woon ay journée yu mag comme bii. Mhm. daanañ ko tëgg rek si koñ bi di jàppale booy yi. saa su nekk ak waa sama waa koñ bi ma àndal. Mhm. ay années ci passé daanañ ko daanañ ko tëgg ci koñ yi. Mhm. woo booy yi nga xam ne yi fay leen ñu bëre. ci koñ yi mais demeewul nii mais nag daana fees dell. yàlla moo dogal ñun euh, nit ñi bëgguñu ñu ba bu ñu jugee rek nit ñi dañuy ànd ak ñun ci li li ñu bëgg. rawatina nag muy gox bi ma dëkk nga xam ne mënu leen a fay. muy goxu kër sëriñ Mbaye saar ak li ko wër. ba kër Serigne Mbaye Sarr njurbel toog njurubeel mbokki ah. njaarem gépp mais rawatina kër Serigne Mbaye Sarr gi ma juddoo nag. na AIC bu mag bi nga xam ne moo nekk sama ginnaaw. muy AIC Pape Diouf. te ma nekk président bi. Euh, war a liggéey bu baax a baax. kon léegi yaay président AIC Pape Diouf. waaw loolu la yàlla dogal man maay président AIC Pape Diouf. Mhm. samay kilifa nekkoon ko. Mhm. maa ngi leen di nuyu muy Moussa Diaw Dieng ak Papa Ras. Mhm. ñoom ñu jël ko. dénkaat ma loolu la. lool la mi ngi événement bu mag muy. Euh, benn journée foofu ci Diourbel incha allah. Mhm. nga jàpp ko bu ñu korité ba ci suba sax nga njëkkoon koo jàpp sax mais pandémie bi. Mhm. ñëwoon gàllankoor ko ku ne mhm. xam na ne mbas mi bi mu fi jaaree li mbasaale dafa bari. mais gannaaw reprendre na li nga xamante ne bii moom mooy activité yi. ñu ngi commencé tëgg làmb yi yow tamit nga jàppaat sa làmb yi incha allah lendemain korité foofu ci Diourbel fan nga toll ci préparation yi. waaw ñu ngi ci bu baax a baax ndax nag mbay fii Sénégal la dooy dem da ngay am équipe équipe bi nag samay kilifa. laa ci àndal di liggéey ñoom it ñu may jàppale bu baax ku ci mel ni ngay ja ngañ jaañ teraanga saltiga bu mag bi ak mambay buur géwél waa ak waa Pape Diouf yëpp nag képp kuy yeewoo ko ñu Pape Diouf rek bàyyiwoo woo muy xale muy mag ñu ngi ci côté yëpp di jàpp loolu moo waraloon ñu jàppoon làmb ji 4 avril 2020 mais bi ñu ko jàppee yàlla ñëw ak dogalam ak mbas mi ñu gëm yàlla dem wutiwaat leneen toog di xaar ba tey nag mu ñor ñu war a nag fexe jéem ba bu tàbbee rek bawal gépp gis ci seen bopp ñu demaat ci yeneen journée. looloo waral ñu jàpp làmb ji lendemain Korité Jurbel ci kàttanu yàlla incha allah. mën nga ñu ñëwalaat ci combat yi nga xamante ne bii moom nga taxawal foofu ci Jurbel incha allah. waaw combat yi kombaa bu mag bi. ci diggante Irkil la. ak Jos bu Kadam. Hercule ak Zot. combat bi ci topp muy combat spécial bi. Mhm. di Alioune Seye ak Balla musa Alioune Seye Balla Moussa. ñoom ñaar ku nekk ci xam na ni làmbi njaareem. Mhm. su mënoon leen tudd te génne leen ci. beneen combat bi ci topp mu ngi nekk ci diggante Malick Niang Sambayar. Malick Niang Sambayar. xam nga ñaari xale yu bari coow. ñaari xale yu bëri coow. Mhm. gaa yu bari calculé wuñ ko kee yam lay jógee kee jógee Mbudaay. kee jógee Mbudaay te waa Mbudaay moom xam nga ne làmb moom seen yëf la. ba ca topp nag di attaqué ak Kama Junior. ñun bàyyi wuñ fenn mbay. combat bi ci topp nag. combat dàqu ko muy bébé raglose ak Malick Niang bu Mbacké. Malick bu Mbacké bu Mbacké. beneen combat bi nag di diggante Sa bu Séwétoo ak Mama Lamine. bu mhm. Ndofène muy xaari Baye Fall. Mhm. yow xam nga ne combat boobu. bëri na ñuy ñëw stade sax combat boobu moo leen di combat boobu rek mën naa feesal stade bi waaw mu ngoog ndax xaarim balaa bëree hmm. ndeysaan faa mu dóoru ci kur gi ba yaram yi tàng waaw mi ngi noonu hmm. te saa mooy borom slogan yi mooy borom séwétoo hmm. euh, yàlla dogal na six combat yooyu daal lañ fa taxawal ci kàttanu yàlla lendemain Korité. six combats yooyu nga taxawal. foofu ci Diourbel incha allah. lendemain Korité mu nekk événement ba nga xam ne population Diourbel yëpp nag ñu ngi koy xaar. ak ñëpp ñi nga xamante ne bii dañoo bëgg làmb. di safoo làmb. mais dañuy dañuy dañuy ñëw ci li nga xamante ne bii moom mooy organisation bi incha allah. lan ngay préparer ci lu bees la nga xam ne waa Diourbel mësuñu koo gis ci làmb. nga fas yéene leen ko andil. waaw ñu ngi ciy pare lu rëy. ndax wax naa la staff bi ma àndal dañoo yàgg taxawu làmb muy Mam Mbay uh-huh. ak Nganjaañ uh-huh. Nganjaañ teraanga xam nga ne bis bu ne tëgg na ko njaareem uh-huh. bis bu nekk tëgg na ko njaareem kon làmb jaaxalu ko nu muy téye làmb ba làmb neex ah ku fa ñëw kontaan am na ci am sax ay surprise la duma ma ko génnee uh, Ameth ñu ñëw rek ci ñi nga xamante ne bi ñoom nga jagleel bis bi waaw Mbaye Babacar ni ñu jagleel bis bi mooy drapeau yi waaye nag bul fàtte ne làmb ji yaaramu bu ñaaxaar moo koy way yaaram mu benn mbañik mhm. tàmmul mesure bu mag bi moo koy tëgg moo koy tëgg ñu ñëw ci drapeau bu mag bi mhm. drapeau bu mag bi di sargal Pastef mhm. bépp militant bu nekk euh, Pastef rawatina nekk commune de Diourbel ñu ngi leen ciy woo rawatina diaspora bi nag ba drapeau bu ci topp mooy drapeau Seydou saw président zone 2 bu Diourbel borom label solution waaw di jàmbaar lool Dame Diop nekk ci ginnaawam nag ministre bu mag bi nekk ci ginnaawam di ko dooleel. Mm. Euh, troisième drapeau bi ñu ngi ñëw ci Tafa Bool. Tafa Bool sunu grand. waaw sunu xarit. moom moom Bool. moom Bool. Mm. beneen drapeau bi. Mm. ñu ngi ci. Euh, Sargal Baba Thiam Sargal Baba Thiam. Mm-hmm. buñ nee sargal nag ñu bari war seen xel war naa ñëw du ku dem ñu fàtte la Baba Thiam dafa def ci lu nga xamante ni ci ñun Baba Thiam Touba Plaque borom Dakar borom Diourbel dafa def ci lu nga xamante ni ñun duñ ko fàtte moo tax ñu mooy sargal gi mm-hmm. bu ñu ñëwee ci beneen drapeau bi nag mooy drapeau Baye Lat Soirée sëñ moor mbay sëñ Mor Mbaye sëñ Mor Mbaye di sunu grand frère bu nekk Italie mm-hmm. jamono jii mi ngi njaareem mm-hmm. mais di nit ku baax ànd ceeg waa garabu Sëñ Tuubaa gi yëpp ñoom buur géwél topp ci ginnaawam xam nga kon loolu du yomb waaw ñoom mambay ñoom mambay mm-hmm. koñ ba yëpp ñoom taala caam grand yi ñoom xaadim caam ñëpp a ngi ci ginnaawam mm-hmm. kon loolu du yomb mm-hmm. troisième combat bi nag mooy drapeau mi nga xamante ni mooy laat soirée laat soirée bàyyi laat soirée bàyyi laat soirée nag yow xam nga ko lim def ci làmb ku ko tuddee làmb sajaan wàcc sajaan wàcc na mu war cee ànd ak xam-xamu làmb gi ngañ jaañ nekk ci ginnaawam mhm. loolu mooy mooy drapeau yi mhm. waaw léegi nag ñu ngi ñu ngi sant bu baax nag mhm. ki nga xamante ne bamba bamba élégance bamba élégance di cheikhu naa taalibe borom daaru moom moo génn fii <laughs> fas yéene woo cee yem wax nga ko est-ce que da pare pour tëgg yeneen journée Diourbel si nee naa la ñun mbay làmb mënuñu koo bàyyi làmb lañ xam fu ñuy dugal suñu xaalis làmb moo ci jiitu tal jàpp nañ ni làmb moom lii rek moo am ñun njaareem am nañ problème ba nga xamante nii tëgg fa làmb dëgg-dëgg yombul parce que sponsor yu loo war a jàppale doo ko am mais nag ñu ngi sant yàlla ndegam ñun doomi njaareem lañ te xam nañ ne amuñu sponsor yu ñu jàppale mais ñu ngi góor góorlu ak sponsor yi nga xamante ne ay doomi jurbel lañ mhm. seen doole bëreegul mhm. mais boo taxawalee bis boo demee wax wax leen ko mhm. seen dërëm ak seen ñaar dërëm du ko fekkee mhm. kon nag loolu dooy ne sant yàlla mhm. ci la ñuy nekkagum du ñu bàyyi ndax wax naa la ne la Sénégal yemut ci dakaar dëgg la Sénégal yemut dakaar ñun njaareem lañ jë lañ dëkk te gëm nañ ni làmb kenn gënuñu koo bëgg gëm nañ ni làmb boo nee Ndakaaru Jurbel lañ ciy teg man sama ngëm-ngëm laay wax waaw jafe-jafe yi mooy ñàkk jàppale parce que benn bu fekkee ne même sponsor amul. autorité yi ñu dugal seen loxo ci doomi Jurbel yi. bàyyi seen loxo yi ñuy dugal ci doom yi ñu nga xam ne dëkkuñu Jurbel te bu ëllëgee bu ñu bëggee ak fal. ci Jurbel la ñuy ñëw. parce que nag boo boo représenté Jurbel. na Jurbel nga représenté. mënoo defal kenn ci àll bi ba mu sant la ba gërëm la. ba ba mu gën a safee ki dëkk biir Jurbel. kon ñoom ñoo war a wëlbati ko waat bu ñu leen tuddee drapeau. ñu jël ko jàppale ñu. beneen bi mooy fexe sponsor yi ñëw jàppale làmbi Diourbel parce que nag Diourbel bu fekkee dañ ko bëgg a bàyyi rek comme ni ñëpp di wax Diourbel dafa dee Diourbel dafa nangam mais kañ lay dox mais ñun kon ñun doomi Diourbel yi nga xamante ni lu nekk la ñuy daj ci àll bi ngir am ngir ñu wuuti ñëw suñu dëkk ñun ñoo ko mën a doxal te man doxal gi ñu ko mën a doxal mooy que ne dootuñu ci xaar kenn man nag damay wax jeunesse bi nañ yeewu yeewu mooy ki la fi nekkal nga nekkal nga nekkal ko fi ku la nekkalu doo ko nekkal man dey noonu laay doxee képp ku nga xamante ni gis naa ne gëm bëgg nga Jurbel gëm nga Jurbel yaa ngi jeunesse Jurbel di ko doxal loo woote maa nga ca kon nag ñu ngi leen di woowaat ci làmbi Jurbel ñu ñëw dugal ci seen loxo mbay ñu ñëw dugal ci seen loxo mm-hmm. mooy autorités yi nga xamante ne bii ñoo dëkk Jurbel mm-hmm. nga xamante ne bii euh, lu yëngu Jurbel lu nekk dañ leen cee war a ràññee bu baax a baax a baax parce que Olof Njaay daf ko wax bay ci sa wewu tànk te li ngay mm. dàqee kéwél mu jëm ca àll ba mm. nga dàq béy bi mu dugg ci biir kër gi moom moo ko gën mm. mais tamit événement bi da nga ciy ànd ak benn partenaire bu ñuy wax euh, Bamba taalibe Bamba ndax nag taalibe Bamba di Badou juuf day suma xarit di sama doomu ndey ñu jàngandoo métier langandoo defandoo lu baree bëri ci njaareem ba yàlla dogal tey moom mu dëggal boppam yor entreprise am di góorgóorlu di liggéey di jaay béton di jaay suuf lépp lu jëm ci bâtiment ak lu ko wër Kër Massar bari na bâtiment yu fi taxaw moo ko taxaw te seen borom a nga Europe wala mu nga feneen bi moo ne ko événement xaarul sax ma ñëw di ko wax ne ko da ngay doon da ñëw doon sama sponsor moom moo ñëwal boppam ne ma yow loo ne maa ngi ci di def dooleem xam nga tey jii kii nii bu ko yàlla dimbalee ba mu nekk entrepreneur bi gën a mag ci entrepreneur yi naam ko moom la nag. Mm-hmm. bu gañee sànc yi gën a mag loolu laa koy ñaanal. koy ñaanal kon tey ji ñun dootuñu am problème sponsor. déedéet promoteur yi Diourbel dootuñu ko am. Mm-hmm. loolu nag ñi mel nii ñoo jara a ñaanal. Mm-hmm, te maa ngi koy ñaanal ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla yàlla dimbali ko. ba heure bi déwén bu mu fi ñëwaatee. mu nekk bis bi kenn moo koy téyel loxoom. keneen du ko rax. wax dëgg yàlla ndax def na ci mu ngi ciy bay waaram naam ko am nañ yeneen sponsor yi am na nii ñu ngi ciy jàpp waaye moom kenn du moom ndax lii di wàllu billet amul leen lu ma rees lépp moom moo ko jël en charge Abdoulaat Fay jàpp na ci ku ci mel ni maam Cheikh Ndaw lamb kenn du moom mhm. kenn du moom parce que maam Cheikh Ndaw Euh, am na ci ñett ñi nga xamante ni dañ leen di solal mbubb ci bis bi mhm. te ñu doñ doñoo taxawu làmb njaareem mhm. ku ci mel ni bàyyi mbaygaar sunu baay mhm. ñu war koo solal mbubb korob ba ma nee ko damay jël mesure waaye bay bàyyi mbay mag la mhm. mu nu mënuñoo dem di ko déplacer dana ma dama koy jël ci mbay Babacar waaw ñoo tolloo bàyyi mbay <laughs> ndeysaan ndeysaan mhm. ñu jóge ci loolu nit njaay moor njaay mhm. kenn ku ne xam ko ci làmb njaare ku bëgg làmb fu ne la doon jaar ngir dugg ci biir làmb ci fu ne lay buruuxlu ñu war koo solal yére moom jox ko cëram ak wàcc waayam ndax ñun kan loolu lañ xam teraanga rek lañ xam mhm. kon te loolu yëpp maam Cheikh Ndaw ku ci mel ni ngañ jaañ teraanga ngañ jaañ teraanga kilifa gu mag gi di saltige bu mag bi mhm. borom domb mhm. moom it da ko war a solal yére ne man maa koy solal yére te du ngeen ma jox bu buñ ci jugee ku ci mel ni Roane Dieng moom it mi ngi def lu ko war mu ngi ci marché Ndiarème ba waaye kenn du Pape Diop bitik kër sëñ Bay Sarr Pape Diop waaw di nit ku baax waaw wax dëgg yàlla ma nekk marché Ndoumbé Diop di góor góorlu lool nag. bëgg koñom di ASC Pape Diouf bëgg ko luñ ko woo rek mu dugal ci loxoom. Babacar Fall képp kuy njaareem jooyatul machine. Babacar Fall bawal machine bawal machine. Mhm. képp ku soxla machine ak lu jëm ci groupe lépp mu jaay la ko. Mhm. kon ñu ngi sant bu baax. keneen ki nag mooy Malick. Mhm. Malick Malick borom borom yi bi. Mm-hmm. waa borom. Meka Meka. Mm-hmm. borom pâtisserie mu mu mu ñëw nag ba sama koñ. Mm-hmm. rond point Kër Sëñ Mbay Sarr. ubbi fa pâtisserie bu mag. pâtisserie bu mag. Mhm. ne waa koñ bi laa ko defal. Mhm. Mhm. Jaw Baas waaw Jaw Baas nag duñ ko fàtte. ndax moom mooy lépp mooy sunu grand frère. Jaw Baas ndeysaan moom événement bi dañuy. man man tuddewuma ko tuddewuma ko Jaw Baas Jaw Baax laa ko tudde Jaw Jaw Baax ndax Jurbel lu yëngu loxo ma nga ci biir ci lu baax. ndeysaan ndeysaan moo tax loolu rek am solo. ñooñu leen àndal ci bis bi nag. ñu fas ne xam nga suñu doomu ndey di tanoor champion bi toog war faa ñëw takk sër. war a bàkku war a bàkku ñun duñ woo benn mbër bu mag bu dëkkul suñ dinañ woo nag. Hmm. mais jamono jii. Hmm. suñuy 100 pour cent bawol daal pour cent bawol lay nekk. Hmm. dañuy woo Bamba Fall. dafa takk sër ba bàyyi bëree sewet def écrit séwétoo lu ne. dafa war a ñëw takk kenn dàqu ko bàkku. bu yoree micro nga ne. Eh, maam góor gi Njaay jugaat na. tanoor mii nag di champion ñu koy ñaanal. ndax lim def ci làmbi Sénégal. dafa jot ñu jox ko gëddam. ay <laughs> ca mi ngi noonu. waaw mu ngoog jërëjëf jaajëf doom day jaajëf Tanor. jaajëf jaajëf voilà mi ngi noonu ñi ngi toog ak ki nga xamante ne bii moom mooy Badou euh, bu mag bi nga xamante ne bii moom mooy euh, euh, Talibé Bamba. te slogan nekk ponctuel ak efficace nekk entrepreneur ba nga xam ne moom moo dugal loxoom ci làmb ji moom moo sponsorisé làmb ji ndax ku ne xam ne ne làmb mënul dem sans li nga xamante ne bii moom mooy partenaire. mënul dem sans sponsoring Badou ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Baba Mbaye Babacar. Mm-hmm. di fay waa di nuyu waa Leewtoo TV yëpp. Mm-hmm. ak uh, Cola production. Mm-hmm. ak uh, Tanor. di nuyu waa Kër Massar di nuyu waa Diourbel. avant li ma lay njëkk laaj mooy sa diggante ak uh, Ameth lan la. waaw sama diggante ak Ameth nag démb la. tey door a ñëw la tey door a ñu dund lu bëri Diourbel. muy sama xarit di sama doomu ndey comme ni nga ko waxee. Uh-huh. ñu defandoo lépp kon moom lu mu dugg rek sama loxo mu ngi ci. Uh-huh. Uh-huh. Uh, nan ngay préparer li nga xamante ne bii moom mooy événement bi eh, nga xamante ne bii daf laa jël eh, dugal la ci partenaires yi. waaw loolu dañ koy dañ ciy kontaan. delloo ko njukkal moom. Euh, jàpp ko it comme sunu yëf. ndax euh, lu toll ni làmb nga tëgg ko njaareem. ñuy ay doomu njaareem ñun ñëpp. Euh, li ci maanaam li ñu ci ëppal solo mooy nay njaareem lépp yem njaareem ñu yemale ko ci waa njaareem mm-hmm. ndax euh, tëgg làmb neex na neexul te ku ne xam ne li ci nekk mm-hmm. kon nag euh, li nga xam ne moom mooy sunu devoir mooy ñu jàppale sunu doomu ndey nekk si ginnaawam mm-hmm. pousser ko ba événement bi jàll ban yëg rek nga am ci ci ci partenariat bi nga bin la boole waaw kontaan rek comme li ma la wax rek sotti ceeg def ci la. lépp ci biir la jëm sama yëf la rek. Mm-hmm. sama yëf la. Mm-hmm. ñu ngi kontaan bu baax. Mm-hmm. Euh, lépp lu ñu ci war. ci lu ñu mën ak lu ñu mënul bu soobee yàlla dinañ ko jéem def ko ci incha allah. wax nga ma ko wax nga ma ko sànq bi ñuy waxtaan nga nekk nit ka nga xamante ne bii mën nañu wax ne ci keppaaru làmb nga yaroo. ndax làmb bala nga koo bala nga koo bëgg il faut nga dund ko il faut ñu nàmpatal la ñu nàmpatal la ci tamit nga nekk ka nga xamante ne bii ci keppaaru làmb nga gimbee kon tey buñ la oowee ci làmb yaakaar naa dañoo delluwaat ba ca ndaa la waaw waaw buñ ma woowee ci làmb dama ci sawar ndax euh, ku nekk xam na Sidi Diouf Diourbel ku nekk dégg na si turu Sidi Diouf uh-huh. mooy sama papa uh-huh. bu nekk nag tëgg nañ ko Diourbel uh-huh. mbëru séeréer bu fa mës a bëri si sunu kër nga ngemboo bëri na ci ay champion yu nekk Sénégal toogal naa leen ci seen cummikaay wala ma téye seeni i bagage ànd ak ñoom dem ci làmb kon nag man mënumaa bàyyi làmb mhm. surtout jeune Diourbel jóg doon promoteur mhm. mënuma ko seetaan il faut nu mu nu mu métti métti rek mhm. mu dugal ci sama loxo ndax xam naa ci lu lu lu xaw ma lépp nag mais am na lu ma xam ci làmb am na loo ci xam nga yor benn entraîneur bu ñuy wooyee bu ñuy wooyee Talibé Bamba lan moo la dugal ci jaay suuf ak sama ak li nga xamante ne mooy béton waaw gëm gëm sa bopp rek gëm sa bopp rek comme li ñuy dañ ne créer emploi may benn jeune boo xam ne maa ngi juddoo njaareem yaroo fa defe fa lu nekk. Mhm. ñëw fii Kër masaar nag ma ñëwee Kër Massar nekk ci di ànd ak nit di ànd ak i nit dem ba ci yàgg ma gëm sama bopp rek jékki-jékki rek fippu demal sama bopp. gëm ne mën ngaa demal sa bopp mën naa demal sama bopp ma fippu demal sama bopp. Mhm. doon yëngu ci béton ak euh, suuf. Mhm. dem dem dem ba ci yàgg nag yàlla dogal comme li ñuy wax rek. boo commencé ci benn ñaan nga yàlla àggu fukk uh-huh. mu ñuy dem dem dem dem ba yàlla dogal ñu mën a nekk entrepreneur uh-huh. di yëngu ci bâtiment ak wàllu lépp lu jëm ci bâtiment rek léegi ñu ngi ciy uh-huh. yëngu uh, lépp lu jëm ci bâtiment yow yéen a ngi ciy yëngu yéen a ngi ciy yëngu uh, ñu bëggoon rek nga wax ñu li nga xamante ne bii mooy jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel ci wàllu ci wàllu entrepreneuriat bi nga nekk waaw entrepreneuriat am na jafe-jafe amul jafe-jafe ndax nit yi tamit booy dugg da ngay dugg ci li nga xam da dugg ci li nga xam tarbiye wu ko mhm. te yaakaar naa defuma ci benn fan defuma ci ñaari fan mhm. muy ci wàllu construction mhm. lu gis naa ci lu nekk kon nag jaaxalatuma pour ma jékki-jékki rek créer sama emploi am samay employé demal sama bopp di mhm. créer emploi comme ni ko sénégalais yi defee mhm. euh, nekk fii nag ci Kër Massar mhm. xëy na ñu bari koo ne taalibi Bamba xam na ma Kër Massar xëy na Jurbel nag miinuñu Kër Massar nga basé quoi Kër Massar laa basé mais sama lépp Jurbel la Kër Massar laa basé fii la sama lépp nekk kon nag euh, buñ demee ba am luy ñuy yëkkati Jurbel sama loxo mënu cee génn parce que man doomu Bawol laa falaa juddoo falaa yaroo te lépp lu ma amit ñaan naa yàlla delloo ko Jurbel mhm. voilà mhm. jërëjëf Badou euh, borom taalibe Bamba du ñu def rek lu dul bàyyi la léegi nga tàggatoo joxe waale sa numéro téléphone ak ku la bëgg a seet si fan la la mën a fekk waa xëy na maa ngi euh, tàggu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mhm. euh, man maa ngi Kër Massar man maa ngi Kër Massar fu waaye nekk nag ci Sénégal boo ma soxlaa nga woote ci 78 632 84 14. Mhm. mooy sama numéro 78 632 84 14. waaw fu waay nekk ci Sénégal rek te soxla ma rek boo wootee ci numéro boobu toujours maa ngi disponible 24 heures sur 24. Mhm. voilà. Mhm. ayca kàddu gu mujj gi looy wax waa Njaareem naka lan lay xaare waa sant ak gërëm rek comme li ma wax rek ñu ngi sant waa këram waa Njaareem yëpp di leen gërëm di leen. Uh, ne na ñu ngi leen di jox ñu ngi waaw solu ba jekk waaw <laughs> waa gaaraas Baba Gaye surtout mm-hmm. Tafa Bool kooku sama sama grand la mm-hmm. sama papa la sama lëpp la mm-hmm. parce que ci ay tànkam laa yaru xam ci moom lu bëri wax dëgg yàlla kooku it drapeau am dañ ciy sawar te bu soobee yàlla dañ cay taq danaa ci taq waaw te bu ñëwee Jurbel dinañ xam ne taq nañ ci te bu ñëwee Jurbel dinañ xam ne ñun euh, njaarem xëy na ñàkkul lu muy wàll yaani lépp mu ngi biir njaarem jaajëf merci beaucoup Badou Diouf di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon ak beneen invité jaajëf ñu ngi woon fii ci Kër Massar.